koo si xaañtee wala koo si gaañtee ji sa mbokk lay doon parce ak limu gi benn lañu. asalaamaaleykum bi ñoo ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay waa Ndanane TV. Ah, ginnaaw ah, bi ñu ñëwee si nga xam ne booy bésu naxar bi nga xam ne moom la am fii. bi nga xam ne moo di ASC Teranga ñu gën ko xam ci Gendal. Euh, te ñu am naqar ak tiis tey euh, di leen annoncé ki nga xam ne moo di Amadou Diop ñu gën ko xam si Eumeunian nekkoon ancien gardien bu Teranga euh, tey ji lan nga ñu mën a wax si ki nga xam ne moo di ki xam ne moo di Eumeunian waaw bi ñu sante yàlla julli ci sangu-sang di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajihoon Amadou Diop nag moom ñu ko xam ci Eumeunian wala ñambaalo Gendel gépp perte nañ tey du sax li mu nekkoon di góolu ci équipe bi li mu doon joué moo ëpp fuuf loolu ci gox bi ku daan boole nit ñi la ku daan reeloo ñëpp li ëppoon solo mooy xam nga euh, féex na xol yi féex mooy ëmb amul fenn fu muy nekk walla fenn fu muy dem ba nit ñi di xiiroo wala di ŋaayoo même bu leen fekkoon ñu xiiroo di ŋaayoo sax dina fexe ba ñu reetaan kooku mooy Eumeu nit nitu jàmm la paix te l'islam loolu la woote donc Eumeu dem na du yaafusam nag ñun nit fi des it du suñu njàmbaar jàppaleen daal ne teraanga gendal yëpp ñàkk nañu seen idole icône la woon idole la woon parce que fépp fu mu jaar il ne laisse personne indifférent et dans le bon sens nag amul nee naa la bu fekkaan sax ñuy werante ba war a bu ko fekkee dina fexe ba ñu ree ña doon werante ci ree la ñuy mujjee loolu mooy Eumeu Niang te noonu la dunde woon ak ñun man am naa chance football ak moom muy góolu match bu ñu nag lébu gi lébu gi mën nañu 3-1 match bi tas ñëpp wu mu ne xëy match bi ñëw ñu ne Njañ Samba la Njañ Samba lébu gi moo dóor lébu gi 3-1 lébu gi ñu 3-1 ñun dañuy dóor Njañ Samba 3 ñu dóor Njañ Samba 3-1 voilà l'homme la lâcher prise il s'est toujours battu et correctement fu mu nekk nag ambiance la dañuy kaf dañuy ree lu mu am bokk comme ñëpp kooku mooy ñaambaar. parce que li nga wax nii sax dama koy firndeel parce que sànq bi ma toogee ci baas bi maa ngi gis ay quelques témoignages ñu naan ku bëggoon xale la ku bëggoon nit. nekkoon ah, maa ngi ciy gis tamit quelques dirigeants yi nga xam ne mooy ay seen ndarku ndaw beaucoup d'ASC yaa maa ngi gis fii mu waroon ne football bi ngay wax ak bëgg nit gi ngay wax ci moom ah, firndeel nga ko tey te tey ji confirmé ne ko lii mbooloo mi gis ni tey ñëpp tax ko gis ngeen ko tey gisoo gisoo sànq bi ne niiw bi ñëw na mu nga ca jàkka ja gisoo mëtu xale yi àndandoo daw jéggi ci jéggi ji tali bi armeel ya tey li nga fa gis ci ay ndaw amul habitude di ko amuñu habitude di ko gis parce que Eumeu Niang moo meloon noonu et bi mu góoloo ba pare deful comme ñun dafa toog di couver ay rakkam entraîneur la woon mu ngi moo fi tollanti gagné coupe ah oui saa di ëmma fu mu kenn du ñepp ku meroon di nga ree loolu la yàlla mayoon et c'est une force régulateur la woon ñaabaalo kenn mësu ko gis mu mel. te lu jafe ci àdduna bi. xam nga le rire médicament la de c'est un médicament ça amoon de la bonne humeur ça de la force ñaŋ man suma waay la woon on avait des relations assez particulières ndax man tamit dama bëggoon saboter quoi. dama xawoon a mel ni moom mais moom moom ma gënoon ay fuuf moom moom ma gënoon ay fuuf man sax man quelque fois man naa déraper mer mais Ouma Niang mosul mer lu ñu wax ne bu buñ ko defee gañe lu mu reelu reelu Ouma ma dina ko def lu mu wënti doon nag l'essentiel ba teranga gañe rek moom moom moo la gënoon marqué ci nga xam ne moo di Ouma Niang durant bi ngeen nekkee ensemble sa joie de vivre et le fait de ne jamais baisser Niang, quelle que soit la situation, il ne baisse pas les bras. Quelle la situation, il ne panique pas. Eumeu li Ikita di def ci Eumeu Niang laa ko njëkk a gisee ñu dóor ba nga teg ko dënn ci ligne de bi ci Eumeu Niang laa ko njëkk a gisee waaw. il ne panique jamais nitu neen la uh-huh, nit il est entier bëggul kenn ku am lu ko naxari bu sañoon ñëpp dañuy kaf di ree ci jàmm la ñuy ne et loolu la njëkk mës a prôné étant joueur étant encadreur ba nii mu tëlee terewul day rassembler il a toujours les enfants autour de lui kaf ree wax lu baax yal na àlaxira di noflaay kenn del këpp a ñàkk na kon mën nañu wax ne tey jii du du waa Guet rek a ñàkk mais le monde sportif ñoo ñàkk le monde sportif ñoo ñàkk ña ngaa les saltige Goulouna Saltigué petite catégorie. Saltigué du temps des shérifs. Souleymane Ba oui Souleymane Ba. Cheikhou Diagne waaw il était bon gardien nag c'était un bon gardien ci ñi révolutionné poste gardien mën na ci bokk parce que Eumeu Niang da doon góolu mais dafa mënoon football avant que ñuy interdire jàppabal moom dafa mënoon jouer ay tànkam donc gendal gëpp ñoo koy jooy nag gendal gëpp nag ñoo koy ñaanal aussi ku rafetoon xol la yaatu mën a bokk mais aussi euh, boo xoolee fi mu yaroo fi mu juddu kër bu mag la njóobeen mais noonu rek la war a mën a mel noonu rek la war a mën a mel il a fait son temps et sa mission a été bien remplie yàlla mi nga xam ne nag moo mën moo am uh-huh. yàlla na ko teeru ci yërmandeem tabal ko àjjana li firdaws amiin amiin amiin allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam ok ñu ba la nga fàttali ñu tur bi Ahmed Sy tey jii lan nga nekkoon ci Eumeu Niang euh, ñu ngi sant yàlla di wax alhamdulilahi rabbil alamin wax naa ko ci jàkka ji sànq wax ne li ko daal métti na waaye nangul nañ ko uh-huh. nangul nañ ko aussi ki ko teg uh-huh. muy subhanahu wa taala nangul ko ko waral ñu dem denc ko ba ñëw wàññeeku ci kër gi di sant yàlla mi ko def waaye ëma ñang nit la woon koo xam ne nit ku baax la woon damay faral di wax ne baax ba dem baax na mais baax ba dem bàyyi ñu baax mu gën a baax te gannaaw ba mu demee bàyyi na ay bokk yoo xam ne baax nañu te mën nañu ko taxaw ku xool diggante jàkk ji ak almeer yi li topp ëma ñang dina la yéem te loolu dara may ko ko lu dul mbaaxam liñ mën santaat yàlla. di sant Njàmbe ci taxawaayam aussi parce que xale bi moom rajo bi waa Gendal la fa tabaarakallahu di Njàmbe. Njàmbe Diak Njàmbe Diak sa jarbaat sa rak waaw mi ngi noonu mi ngi noonu moom tamit ñu ngi koy jaale. di jaale aussi famille bi yëpp famille Ndiobène bu ñu noonu Ndiobène nag amul kenn ku ñuy bàyyi. di sant ñi nga xam ne aussi bi ñaa sonnee lool ne hôpital ñoom ñoo ci doon taxaw di ci sonn di ci rey seen bopp. boo tuddee kenn rek mel ngeen ne tuddee nga ñëpp hmm. waaye mën naa ci génne ku mel ne Cheikh Matar hmm. mën naa ci génne ku mel ne Soxna Koo jóg mu représenté leen ñoom ñëpp fa tabaarakallaahu di santa waa Teranga hmm. gis nga Ousmane tubaal la jóge waaye fa tabaarakallaahu wéer na ma ne mënul woon noppalu te fekkewul lii ndax ki nga xam ne mooy ñaar di seen lépp am nu mu meloon fa tabaarakallaahu ñuy ñaan njéggal yàlla na ko yàlla teeroo njéggal amiin amiin yàlla yàlla yërëm ko dunda ba faw mënul yàggal lool rek mën na am ñun ñi fi desandi yàlla nañu fi yàlla bàyyi ñu yàgg fi lool di ko jaale suñu yaay yi toog ndax njab meer yaa ngi ni toog paa yaa ngi ci biir fa tabarakallahu yàlla leen fi yàlla bàyyi ñoom yàlla defal leen wér eh, ci barke yonent bi kàddu yi may sànni sax mënu naa ko bañ a sànni parce que ñun ni may dundee la sama kilifa boo xasee ba toog yàlla xam na ne du ma bëgg a wax te sëñ Abdou Aziz bii toog mooy sama kilifa fa tabarakallahu dem naa ba ma ko ba may jël kàddu sax dama ko laaj ndigal mu jox ma ndigal ma doog a wax fa tabaarakallaahu di sant président Alhaaj Jibril Cissé Cheikh Matar fa tabaarakallaahu Thierno Ndiour ak ñëpp Ablaye njaboot gi yëpp ñu ngi leen di sant di ñaanal yàlla sunu yaay yii yàlla na leen fi yàlla bàyyi yàlla wéral leen bàyyi leen ñu yàgg ñaanal njaboot gi di sant nag ki nga xam ne aussi foog ma wax ko mooy soxnay ëmët ñang di soxna mama mama dafa am taxawaay bu mu taxaw ma xam ci dara ëmët ñang feebar bari lu muy waxtaan ak man waaye maman am taxawaay bu mu taxaw boo xam ne soxna su ko taxawee ñu wax ko kon soxnaam muy maman bii yàlla na ko fi yàlla bàyyi moom it yàlla sàmm ko doom ji mu fi bàyyi wax naa sànq Ousmane ma ne man maa jigéen dafa dawal suma yaram dama dugg si rek mu daw dax xam ma fi ma ne ñëw na ma tonton papa Ngase ma ne naam mu ne ma ana Eumeu Niang ol ma Eumeu Niang loolu rek am na fu muy yóbbu te Eumeu Niang amul bés boo xam ne mën na ko toog te du wax ak man amul li mu tëdd feebar sonn yëpp gëmoon yàlla la parce que boo ñëwee di ko seet si mi ngi fexe nu mu la bégale pour nga kontaan ba booy génn nga am jàmm ku mel noonu nag buñ ko ñàkkee bésu ajuma ji li sëriñ bi wax mooy téere yëpp d'accord nañu ku ñu jenc bésu ajuma sa yaramal aramal na safara yàlla na ko ci yàlla boole ci barke yonent bi yaa binte yàlla yàggal taxawaay yi bàyyi leen fi yéen it ñu ngi leen di sant ci li ngeen def Ousmane bàyyi yiite yëpp vraiment ñëw di assister lii uh-huh. ci gendal ci teraanga te gendal yëpp benn gendal rek la. gendal un deux trois yëpp benn gendal la. kon ñëpp a ngi fi. gend gend ba dàngu waa lébu yi ñëpp a ngi pàngee gis naa ko léegi. donc loolu ñoom blouse fay ñoom ñoom ñoom ñëpp ngi fi. kon nag ñu ngi leen di ñooñu la fubal ndool. chance bi mu njëkkoon mooy dafa fubal rénovation soog a fubal teraanga man par exemple aw ma chance fubal rénovation. parce que bi rénovation di am maa ngi fubal Fass. Ah. mais Eumeu Niang dafa fubal rénovation. Mhm. muy bi kat gendeel yëpp bokkee. ba pare mu des teraanga. bi teraanga rek nekkee. yàlla na ko yàlla fay. tey jii nan nga ñu mën a wax si Eumeu Niang. waaw salaamaaleykum. ginnaaw bi ñu leen nuyoo nangu dogalu borom bi. Mhm. xam naa wax ji dina xaw a jafe ndax ki ñu ñàkk moo toll noonu. Mhm. Eumeu sunu grand frère la. waaye mën nañ ne sunu papa la. tey jii boo doon wut si kër gi kenn ku nekk boo ko laajee danaan xaritu ñaa laa mais ñun xamuñu kan mooy xaritu ñaa parce que moom ñëpp la defoon xarit aman ñaa bëggul woon ku mer mosuma koo gis mu mer man fii laa juddoo mosuma xam lu metti ñaa aman ñaa dund nañ ci kër gi ba bi mu tëddee feebar bi ko yóbbu nii muy souffrir te souffrance bi mënu ko woon nit soo ñëwee mu ngi kaf mu ngi ree mu ngi lay dalal comme ni ko gars yi mu nekk nit koo xamante ne day oyof si ñun parce que du ñun ñoo ñàkk mais tëngeej moo ñàkk tey bi ñu xëyee gis waa tëngeej yëpp publier ko ñu xam ne kon tëngeej moo ñàkk mu nekk suñu grand frère boo xamante ne ñun dañ koy ñaanal rek ba pare ñee nañ ko ci lu mu am di gërëm jabaram maman comme ni ko ñëpp waxee ak ay doomam ñoom bas ñu taxawu ko taxawaayu doom mat sëkk place bi muy maman mi jabaram ji ama ba ni muy génnee àdduna boo xoolee dafa set wecc ndax jabar ji toppatoo bi mu koy toppatoo. Mhm. kon ñun ñàkkuñu mais monde sport moo ñàkk waaye ñu koy jaale ñëpp comme ni ñu koy nit ñi di jaalee dañ ne Eumeu ku ne mën na ko jaale moromam waaye liñ leen mën a wax ci Eumeu Niang mooy nit la woo koo xamante ne daal kenn mënu wax ne lii moo koy metti munoo xam lan mooy metti Eumeu Niang nit la koo xamante ne ñëpp la yemale woon uuf ñëpp ci kër gi bi mu feebaree dañ ne kër gi dafa gént parce que boo ñëwee day wéet ndax ba muy wér day teg ataaya ji ñëpp wër ko muy ataaya ñëpp di naan kaf ak ree lañ ko xamane ne ba bi mu génnee àdduna pour nga am vidéo boo estati problème la ndax vidéo yëpp comédie la xanaa quelques photos la ñu am kon ñun suñu xel dal na ci moom dañ koy ñaanal di ñaan yàlla am li mu am tey bu ñu demee armée li gis Eumeu li mu am sunu xool dafa sedd xam ne li mu lebaloon waa Tëngéej waa Tëngéej fay nañ ko ko kon ñu ngi koy ñaanal yàlla na xippee àjjana di ñaanal famille bi aussi ñëpp am xolu muñ incha allah di leen ñaanal aussi yéen tamit ngeen egg fu kawe seen jor vraiment lu nañ ko ñu am naqar bi ngeen ñëw won ñu ne Eumeu Niang Tëngéej la bokk ci monde sportif bi la bokk ñëw bokk koog ñun kon ñu leen di ñaanal yéen tamit fépp fu ngeen yaakaar egg rek yàlla ngeen egg fu ko raw incha allah jërë ngeen jëf. tey lan nga tey ba nga yëgee nouvelle bi. waaw xanaa di am naqar ak tiis. Mhm. ndax euh, ki fi jógee. Mhm. di ancien gardien de but a Teranga doonoon na koo xamante ne ku mënoon a dajale la ba bi ñuy mujjee bokk di añ fii boobu feebar benn koy commencé gagné mais lim mo wax mooy lay bàyyi lay la ma daan wax ñoo bokk ndey ak baay bàyyi laay la ma daan wax su ma nee bàyyi laay ma ne mu ne ma parce que sëñ man su ma faatoo àjjana ndeysaan ah, boobu mu ngi ci feebar ñu toog fii di añ mu ne ma barke sëñ Touba bàyyi laay man suma ma faatoo àjjana laa jëm ma koy mbalak naan ko waaye da ragal rek da soog ne da ngay dee mais deewoo ndeysaan mu ne ma non waxuma ci loolu mais dama xam li ma wax ah, parce que ragalu ma dee ragalu ma fu ma jëm ndax man bir na ma ne suma ma dee damay dem aljana mm-hmm. ba muy ñetti yoon keroog bañ koy génne fii mu war a dem faan muy demam bi mujjee gise ak moom dama ko longu ba ci buntu kër ne ko bàyyi ko gaynde gaynde laa waroon wax gaynde mu ne moo mbàkke ma ne ko demal mais na nga ndax njaboot gi ñu ngi lay xaar ay farce moom yooyu mu piis ma noonu dem mais am na fi ay vidéo yoo xam ne bu ñu leen ko wanoon da ngeen xam ne li ñu leen li ñuy témoigner si moom nii. du lu ñuy sos wala leen. ay vidéo yoo xamante ne day fecc bégal ay njabootam bégal ay frèram lu ñu sañ a wax ci moom. Ah, man sañu ñu ma ko wax te maa gën a tuuti. dañuy dem dañu naan ndax ki nit la. Mm-hmm. tellement que wàcce gi mu wàccee boppam. bi si mujjee bi muy fecc day fecc fecc fecc ba tourné yam ci doom doomam bu jigéen bi ñu maa jigéen ma ne ko ñaa yow yaa ngi fecc xoola sa doom bi mu gàddu doom bi gën a kàppar bi fecc ambiance ba ci ASC bi ba mu feebaree seen match ba ñu leen di dóor rek feebar ambiance boobu moo manqué seen ASC uh, équipe bi ba ba ñu demee dañ leen dóor ba ñu lañ ko wax ku gis tey tamit rob bi nga xam ne waaw nitu nit ñi la woon ku mënoon bokk ak ay njabootam la ku mënoon bégal njabootam la oyofoon la moom li ñu mën a wax ci moom mooy respecté na képp kuy doomu aadama oyof na yaatu na bëgg na doomu aadama bon am na loo xamante ne lépp buñ koy wax fii duñ fi ci moom mais li ñuy mën a wax rek mooy témoignage bi ñuy témoigné ñi ko fiy témoigné boobu ba léegi ñii ay xaritam lañ ànd ak moom bokk ASC bokk ndoo football solo ndoo mayo ASC Teranga ñenn ñi rénovation la ñu bokkandoo woon ak moom ba nii muy tëlee nii tëdd buñ ko bëggee xaw a dañ ko naan gaawal ndax nawetaan bi léegi mu commencé. bëgg nañ nga ànd ak ñun ci nawetaan bi. bu ko defee mu xaw a soulagé wu ndax nu mu bëggee woon ASC te yàlla nee na ci addis ne képp koo xamante ne bëgg nga sab gox. bëgg nga ña nga nekkal. man yàlla nga ko defal. ndax wala xadd karam naa banne aadama moom ci wàllu woowu la doon doxee. kon nag am lu dul. di ko sant di ko ñaanal yàlla foofu mu ne fa mu jëm yàlla na ko gënal fi na ci lu mu doon def ci amiin amiin amiin na ko yàlla yóbbante malaakam yërmande mu teeru amiin ci ay mbokkam nag bu mu bokkal ndey baay moom moo doon témoigné témoignage yooyu boo leen déglu woon nit pur ci ay euh, positivité dinañ leen ko ñu ngi leen di gërëm jërëjëf yaay booy salaamaaleykum. ñu baal baal ñu nga fàttali ñuy tur bi. Aïssatou Diop Astou Diop bàjjenu ëmmal nañ ci gaañu. waaw ginnaaw nag bi ñu tiis bi dalee dama ne sax yéen waaye tiis bi dalee Tëngéej yëpp ndax tey la moon sportif ñàkk na ki nga xam ne moo di Amadou Diop ko xam ci Oumou Niane nekkoon ancien gardien bu ASC waaye nekkoon tamit ancien gardien bu Port Autonome Dakar nekkoon doomu Tëngéej nekkoon doomu Gendal tey jii nan ngeen daan dundee ak ki nga ne moo di Oumou Niane mi fi ba mu fi jóge Oumou Niane lu ñu daan dundee moom dafa bëggoon teranga bëgg sport tubaarkàlla macha allah di si daw bañu si dara macha allah mu ne si bëgg nag sport bëgg xale yu ndaw yi doon nag xale bu baax xale bu am yar xale bu am teggin xale bu am teranga tey jii lañu am lu ñu naqari bi ñu ko ñàkkee waaye nit ku baax la nit ku nit la nit ku bëgg boppam la nit ku bëgg nit tey jii lii wane na ko ndax tey zones yi kenn toogul fépp fu équipe ne rek euh, envoyé na yónnee fii rek mu am lu mu siy wax kon am man ñang yal na ko yàlla xare àjjana yal na suuf oyof si kawam yal na réccu lépp lu mu fi doon def ak mu jullit ko mu fa fekk kontaan nañu lool jërë ngeen jëf jërëjëf yéen a ngi dégg témoignage yi mu nekkoon ancien gardien bu Teranga nekkoon tamit ancien gardien bu Port Autonome de Dakar nekkoon jàmbaar si dëkk bi yaakaar naa ne Tëngéej tey moo ñàkk gum ni euh, nga moo ne moo ñàkk tey tey jiñ toog a waajuram bu jigéen yaay booy ñu ngi leen nuyu di la jaale euh, ki nga xam ne mooy li ñu bokk muy Eumeu Niang tey jii lan nga ñu mën a wax tey si Eumeu Niang Eumeu Niang nan la daan dundee ak yow si biir kër gi fii maa ngi maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di témoye Eumeu Niang mën naa ko témoye ndax maa ko jur te li ma koy témoye àddina yëpp mën nañ kaa témoye ama ñang oyof na ama ñang wàcce na boppam ama ñang bu nekkee ci kër gi ñëpp koy wër mu teg baraadam bi ba guddi bi mu feebaree rek la nit ñi dem kenn ñëwatu fi waaw bu xol bu rafet am na ko du lekk bàyyi kenn man mi waajuram respecté na ma faale na ma faale na ay rakkam faale na ay jarbaatam ñëpp la wàcce boppam ba ñëpp dañ ko mujj sax di ko yab ndax oyofam kon na maa ngi koy ñaana yàlla fi mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jóge amiin amiin amiin fi barke bi yaa rasulullah bu dee xol bu rafet rek la ak tabe ak jullite te du bàyyi waxtu yàlla na ko ko yàlla fay fa mu ne maa ngi koy ñaanal bu baax di ko ñaanal di leen ñaanal yéen ñii man ñàkkuma yéen a ñàkk football bi ba boo ko daan ba bëgglu li mu feebar feebar feebar bu ma nekkoon mhm. aman ñang xanaa bëgguloo nawetaane léegi mu bi de mun a eh, sama yaay booy maanaam mu ne bu soobee yàlla dinaa ci dem mhm. waaye dafa gëmoon yàlla jàmbaare feebar na ba dem kenn waxul saalitam ndax day tudd yàlla rek di sant yàlla boo waxee mu ne yaay dinaa wér maa ngi sant yàlla boo ko nee yaa ngi tànn mu ne maa ngi sant yàlla rek mooy waxam. kon nag yàlla na ko yàlla li nga wax nii da koy firndeel na sàng ba tey seede yi benn la. ama am na bëgg nit la. waaw am na fonk nit la fu mu taxawal nit da ngay reetaan. di kaffooree rek la xamal nit ñi jàmm ak na la ñëpp seexal ñëpp. tey jii ASC yëpp uysi nañ ko monde sport yi uysi nañ ko tey boo xoolee si biti mm. tey li nekk si biti xajul fii mm. ndax tey le monde sportif ne naa la moo ñàkk tey mm. ASC yi nekk tëngeej ñëpp ñoo mobiliser ànd ak gunge ki nga xam ne moo di ama ñàng yaay nag dañ lay jaajëfal kii di kii di uh-huh. Thiané Sarr mi taxaw fii tey uh-huh. nekk naag ama ñàng port uh-huh. port autonome da Dakar mm-hmm. fa la ama ñàng nekkoon di eh, nekk garden eh, di di góol mm-hmm. fii ci teraanga mu nekk fi di góol mm-hmm. ama ñang ba mu juddoo ba léegi kenn mosut a gis meram man de mosuma koo gis fekk dinaa ci bari moroom ama ñang foo ko njëkk a gis bëñam ngay ngay séen ba pare fa mu fu mu toog kenn du nget loolu laa xam ci moom yal na ko yàlla teral fa mu nekk mm. yal na malaakam yërmande teeru ko mm. yal na si eh, xippee àjjana ci barkeb yaa rasulallah barkeb alquran